بوزما بمهمة فلت وغيرني مجل خير کی جانے

مغار جاي مغار بدون أسد بل بل في الموسى تجاني يعني. يعني. من والخيل في دنيا الآن سجدت لي برامة جيبين مضر أبي الأنبياء مجيب أبي الأولياء تياني وراء ألف سمعان من مجل خيل في دنيا الآن وفزت ay nu man la gënal bara ma jër fay lu dikk jo al sonaane alaykum sumaane mul mo yel fay lu tijaan yel ni naane Omar santal yàlla tey sant bay asana mon loolu moo ñu tere Seexu Tijaane alaykum sumaane mul mo yel fay lu tijaan yel ni naane pune me mom tay bo bo me jarre gai ti jani ara ara ara abi pune

المجل فيل تيجان شيخ تيجان بار الانوار قلب الاولياء قلب القلب بعد ما يموت المتيجان قام قام الوراء الالف سواء المجل فيل تيجان مكر مبان عام يوم بجم مكر مباي موجود اسم مونيكا دار الماني قام قام الوراء الالف سواء العالم المدى الخير في ذات الإنعام أكل أكل البرهام من يبني دين وأنا واجد كل مرور أبداني المدى الخير في ذات الإنعام يا يا من يباكل بين ديتان وراء القلب الجمال من مجل فيلتي هداية الوقيلين صدق عاني وراء وراء عليم الجمال المجلفين في جانب الإنهاني مسيدات ما كان تميم براءة يا كسر ويمنى المركة يعني وراء وراء

تسقى كل أنها المنبر تنعني وما مطار ولا ألف سماء من مجل فيتي جاني كوس كوس الأكاس لجنين أنا لا أرفض لفيل بن الوائم قايتي جاني وما مطار ولا ألف سماء من مجل فيتي جاني أصل سيسي جاني لأينا لتباخ مرام يرقو يوم بمتران بجزاك سيري مرام مرام إمام شيخ يونغلين أنا تباخو براكم وكبت مركي يا ميقايتي يعني بابا بارون ألف سواء لمن مجل فايدتي يعني عميلة عميلة ينقل يخلين عميل يلا يلا ميلو يدي بركامين بابا بارون ألف سواء لمن مجل فايدتي يعني والله كنت أنا سواء

barke seex yàlla yàlla jox ñu lu dul jeex barke Tijaane baraama bawul baraawul maliku suma ami man ma

xabib sumaani man mu jël faylu tiijaan yennaani sëriñ Ibra Faal moo ma topp ci daaw baay sëriñ bay bu baax mi moo naan jox ñu ñuy naane wala daawun walaawun xabib sumaani man mu jël faylu tiijaan yennaani ana manes moo du kutbu kaasa man kaasa maa géej yeneen tama yaa fay jàlle war gaane wala daawun walaawun xabib sumaani man mu jël faylu tiijaan yennaani ɓooɗi docteur minefe séria en def len docteur e baynamade yallah aliman somaa animul mojal fayno tijanina madi yallak madi yonnel madi seeku tijan alu jagal kuyal ma job siri barama aliman somaa animul mojal fayno tijanina jodul fedel naasi ba tey gobar kenn boo jural fan la wul njoo siri bara ama 세상 الآخر على المآل ما صلى على الحبيب زين الكيان تأجاسي إلا سدود آيات آخر على المآل ما صلى على الحبيب زين الكيان هم القرآن هم القرآن نافذ القرآن هنا بزنان القرآن ما زمان على الأمير يا عبر أباسي فالأبسان هو أمي وخكا

they not say, when من نيل الأمان ما تمت مقاله بلا تماله صمت على الآن تم المقاله بلا كمال صمت على الآن jërëjëf mbokk yi jërëjëf Pape bu leen te tarbiyu Cheikh Tidiane wàcc sona Allah ilallah xayartu sidi bara amu na fasal leen àddina bëgg yàlla bañ a réeroon bàyyi seexoo seen mu rabbi mooy sidi bara amoon na yàlla dajji baggu lislaam bi jébbal ko baraama tijji ndam bi lay jébbal sidi bara amoon na yàlla mi daan yónni yónneetu jàmboom jeefi teewu sirul haqi fay na soodaan sidi bara amoon na ñay buy xànn mbabal doom yaa tax maj soo bi leen wattu leen mbon lool moo neex sini bara amoon na na ko dalee ca Adama ba ci ab tanaay lu fi mos a yëngu sabal sini bara amoon na sopp leen seen mbokki ñoo seen doomi baay jëfe sarihatu moo neex Sidi Barham mu nan lam leen ci pii bi bay bokkaale bay bëggul loolu bokkaale day yëngal haras dërë ki may sob lank waame dox daxas gi ci coono may dee xibaar yi sànk nañ gaañay di bara amoon na ko géej mbaggu lam gi bàyyi ku la jéem a xas ay yaxan seey alqaawu maxrib bi doomaas di barahama yàlla yónni ka mu daan yónni koko leen di waar sirul xaq yi ñëw na soodaan si di bara amoon na max jóobi dof ngeen ndoxom essence biñ ko fayee daay dafay yokku daay ko sidi bara am mu ne mac soppu ndaw warlum kaa ganaay jaane sangaangaay maccu bi wattu leen ndongoy sidi bara am mu ne ba yàllaay di yëg sidi baraama fommul kooku malakootu ku ko fekkee wutoom bul witiiti sidi bara mu ne baay batam bu jëkk ba su ko kaw asamaaw mul ko mën a ko la ca biir wur na barahama baay bindim nga day dàq saytaane te di rooseen leer Ibrahima Diouf santal gërëmal sidi bara man Ibrahima Diouf santal kilo roose بنسخ الله فرد الجميع بدوماس سيدي برا امون قادرنا بغلو سينا نسوكر ci biir neew ibrahima diouf tagal masa bay sidi bara amuna njar nganji liw bi weyna wasal so bari leer fudi yaani ñoo doon jabran sidi bara amana yoonu ndakaaru wa bay jaare sikikan gayamu gandagana lapai ka barhama wanar na karal mayor masiar sidi bara amona hanar pai gatte ganyu merlo baram abdallah junne janaw na yo fawail kunne qiyar qir bole dalan nutum daw bas sidi bara amar jimi pei bankonan barhama mulla saydam kunyme yambay lekki len yeb sidi bara amana suma nampoon arab mbaa ma sayana wax li bay doon dëkkoon suuf si tappoog asamaan sidi bara amana ko bay jëmmam ja paase na jëmmi xutbu bay waxal ñu ko doon siiqu tijaan nga ñuy hiidoo sidi bara amma maam astu jànqa gore maam astu jànqa mooy kënu balam ya moo dem ba kënu taj xoli man xat sëkkanu ba kënu soxna say kenu mama si jànqay gelwaar matal na bolim mi dawaar mbiram mi tol na raw kii moo ñu hem kii moo ñu matal na xaqi boromam sem na ci xaqi moromam matal na xaqi sëriñam sangam ba mooy borom këram looloo waral mu ci moom maam asuni lay gën ji dooma dawaa ji doon nu ma moom fay ba ngir moo gën ca moom maam asuni ay gàngaraam la jaay jëndi ko am njaram jaayante ak borom këram matal ko laqee ngërëmam moo liggéeyal borom këram ba xam tiraanga xam ngërëm te jaamu buur bi boromam ba tax na doo gis moromam jox na ko léppi xalalam ngir doom ju baax xam barke xam waaye jëmmi barke xam la xam ba lépp miraar jeexee xatam maam as ci jànq mooy ngalam xayma ja foor na ay lamam diñ ko xaymaa ki përëm te ko jaayee ay dërëm maam Astou Diankha fam sosoo am nen ca ñoom bu ca sosoo mooy junni cuuj ba ca sosoo te duñ ko xaymaag lam sosoo njaaraama soxna Asta yow sa doomi doom gi foo taxaw ci dund fekk leen ñi raw yaa barke Diankha maa la naw maam Astou Diankha yaayi baay kii maayi doom ñaar seeni baay moo foor garaat ko wemedaayi ngir na sadam a waxlu haayi maam astu mooy nawet bu bees lool ni mbaxoom na sàq fees nooraan bi xiif lekkal mu rees dembu lool xam na lu wees maam astu mooy ka raw kawee ca gaayane ka raw ka boole ñaari buum ya raw mu mel ni soowa xam ka raw sariya حقيقة أك علم أك معرفة أك رسط أك ولاية تجني أك مهسة مام أسجد كتارقم هل أنت أم جسكو قم بنت من أيوهم شاي قبار سخسخم من تكنان أقنهم نجاكنا ورسلم بمن ينان كلمبرم أن نمدوه دفنه لهم te daawut foni ay gune da daan sikkar fu mën a ne ngir kudd fu war a gane fokk mu doon fu mën a ne kenn mas sa maam asta wax ci kaw ci ay sikkar la sax te sa reeba rekko sax te mos sa ngir na sax sa ngi jigéen liñ fi xamoon ci dut bi yaaw fi ñaawoon mel nañ meloon def lañ defoon ngir jant fenkaan moo soxoon rijaal ya gën juróom la woon yónnentoo saabaan ya woon ñeenti ñu baax ñoon toxoon xam na ñu juróom la woon juróom benneel na leen ibnu abdul asis kaleena royoon ci mbaate fonku leen te tànn seen yoon topp leen juróomi soxna yi itam ñoo gën ci fii ak fa ñu jëm maam asta roy na leen ba xam ku ñëpp nawloo moom itam xadijatu fatimatu aysatu asiyatu mariama ñii la jël atu maam asta mooy saadisatu juróom bennal na leen ba tey ba tax na boo xëyee way jigéen ñi baax ñi honte way wayoo ko woowa way du way maam astu dongoy sëriñam bu baax ba xam na njëriñam bagaanu soow yaa karawam ga xam aw ñamam moo mboolem ndongo ya toggoon ma togg ya toggoon na wal ya soq ya toggoon na ron ma coono ya te mastafakal waxtu wa ak wirda wa xaw ci yonam ngeen la way bu len ko sentu raw la way sa dom ci géej la diñ ko ŋas si gil na gaaya sant ñas te toolu diina moo ko ñas ba noonu diina xëy nas sa dom ci géej la diñ ko ŋas si gil na gaaya sant ñas te toolu diina moo ko ñas ba noonu diine xëy mes sa doom ja njànq moo musal rooyu suqun ci mbugal sa tar na seen tilim saxal na leen ci lii jëfee ndigal sa doom di réew yi yom da ñaan nganam te ñoom ngi def fa ñaan te fa endo mbaa fanaan ñu jug ci peppar jug ci ñaan maam as ci jànq yaa fi xam koo xam ne xam ko doy na ndam sangab arab ak ajam yaa suri saan yaa suri si buy teewee fa baay ñaanal ni ndomba ñaari doom suri sey barkelu ca moom dikkin ma ngir am cër yoon ba baay juddoo na sunu naam abdul ilaahi ñas ne maama aste yaakaar nga muy imaam man dogu naa ta man taraam xattam ma fati moom la bàyyi wax liir na booba ci lalaay rijaanu xay yaa seeni gaay nangul ko bàyyi moo formé daay jamaano bi ab saahiram yombal na mboolee mi mbiram borom jamaano duuguram dikkam yombal baatinam sa doom ju mooy samaan bahrul buhuuri kenn naan lomoy ci géejam fooy fanaan lu ci suufu asamaaw siggil balaalil asamaaw sa doom ji mooy qutbu samaan walam yaqaf jawra zaman mooy rabbu amnin wa amaan sa doom ji rek moom lañ fi xam mooy nit ku ñuul ku naari gëm di ko dagaan di dem di tarbiyoo ko xam ngërëm di ci bàyyi ci xeeti xam xam ak wilaaya mustahab gëstul ba xam ku mel ni bay ñes yaara ni ku njiital fa xam sa doom ji fu mu a gane mooy jiite mbooleem ña fa ne baatoo la buuru ni tëgg a jinne góor ak jigéen mag ak gune wurus la yaa doon sedefam jagal la yaa di masriqam yoo kenn ni njànqal lañ fi xam ku meñ ñi mbon mu kenn du xam sa mbon mi mooy tiitar ci xam loolu moo waral xàmmel lisaam ñooñ Mustafa mooy seen imaam yaa fis ba goy naay doon sa maam bàyyi yaaram la xaas la garme la du toll toll na kenn la ku yàlla buur bi tànn la te kum defal tiraanga la taxawlu ne taxawlu naa di ñaan ci yàlla rabbana mu tàggataw ñu haddina halal ma may ñu aljana ci barke bay ci barke maam Abdul Ilaahi barke maam aysatu janqa wassalaam ala nabi xayril anaam maam aji ñas baax na baax na baax na jërëjëf Kebe jërëjëf euh, xam naa ñu continuer ci kanam insha allah ak Mouhamed Kebe mais dama yaakaar ne mbooloo mi yéen di yuuxu yéen ñooñu di yuuxu dama yaakaar na Mouhamed Kébé li muy wax neexu leen ndax bu neexoon ngeen indi addaay addiyee bàyyi ci kaw taabu ji maa ngi leen ñu bàyyi xel leen ñëpp waaye yéen fi ngeen toog ngeen toog kon nag Mouhamed noppil bañ soxla wàll kon ñu continuer programme bi euh, jërëjëf Cheikh kon ñu jàll ci ñaari xasida ba ci ñett pour jàllale ko mooy xasida bi nga xam ne nuuru diin moo ko war a jàng suñ baaree jox ahmad ahmad min Mauritania Cheikh Aboubacar Tidiane am na xasida bu mu fi indi moom i tamit danañ ko bëgg a jàllale balaa euh, sëriñ bi agsi kon ay na nuuru diin taha yulqi alqasida Cheikh taha niyaabatan an nuur diin nuuti ahmad yulqi mudaaxalatahu suma nantaqilu ila Cheikh taha ليلقي قصيدته قصيدة بالنيابة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من آه، دميسان دنا على وقتوتي من من موخ آه، بومو فراني في آه، بومو يندو في من موخ درتي شيخ المجف شيخ الإسلام شيخ تيجاني

السيد الناطق الرسمي الإمام المجدد والإمام عصره الشيخ ماحي سيسي ولا غر إن كان عالما وابن عالم آه، أيها السادة والسيدات الحضور أبناء الشيخ المشايخ الكرام أتقدم إليكم باسم وفد الشرفاء القادمين من موريتانيا بأننا جئنا هنا لنشاطركم في هذه الذكرى آه، التظاهرة ميلاد الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم النصر ونطلب منكم أن تقوموا جميعا للترحم وقفة صمت للترحم على شيخ الإسلام الشيخ آه، نص إبراهيم النصر أن تقفوا جميعا للترحم على شيخ إبراهيم النصر شيخ الإسلام شيخ الإسلام قوموا جميعا للترحم على شيخ الإسلام شيخ إبراهيم النصر قوموا جميعا بالترحل وقفة دقيقة صمت دقيقة صمت دقيقة صمت لشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ياس من ngeen noppi tuuti ngeen wax allahu akbar pour ñu màggal bàyyi bàyyi bàyyi هنا جئنا وهنا جينا عن الشعب الموريتاني والجمهورية الإسلامية الموريتانية وعلى على رأسها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و ونتقدم بالشكر للسلطات السنغالية على تسهيل الطريق وعلى رأسها فخامة الرئيس ماجيسال ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول إن الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ياسر مجاهد و و و و و وعالم و و و وعابد ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عيب فيه غير أن فؤاده تظاهر فيه العلم من كل جانب ولا عيب فيه غير أن فؤاده تظاهر فيه العلم من كل جانب وشكرا أحمد البياه من موريتانيا jazakum allahu xeyran euh, jërëjëf mbokk moom nga xam ne mu ngi jóge Mauritanie wone mbégam ci sant gouvernement Sénégal ak gouvernement Mauritanie ci lii nga xam ne moo ñu fi dajale mooy màggal juddu Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass jërëjëf ci kaddu gi ak yëg bi kon ñu jàll ci xasida bi nga xam ne Cheikh Taha Alhaji Abdullah يلقيه يلقي القصيدة نيابة عن الشيخ نور أو أستاذ نور باب اليمين فليتفضل مشكورا الحمد لله والعبد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله يا كريم رب العباد ولا يموت لا ينبغي رواه يا كريم mooy maalikul mulki te mooy wahaabu du ku ñey digal ki lay qahaaru moo ñu amal ci coobarem bi te bu ñi fi jële halak du lacce kon bismil ilaahi maa ngi soobuy mandin ma waykar ya hawal ba jot seen mayya laa jéema haw ngir bëgg way baraama بنكم مؤدن رسول الله احمد جو فرلو تدل قاطر تجي ما من دي في كوي زواجا يلا نتنلون قليل الله تدفكم امام الاولياء يا رب دمنا مهرم تدينا كير مستجس كما ملين déglul ma wax la soo rawee maasam nga nga dal da xam ne moo doon rasulullahi te wax ko ci wolof bañi naakul yaaram te réere ay biram nga xam kuy waaja yow ma alastu la bàyyi rawoon kuy maasam moo njëkk wax ba lee gannaaw rasulu ñu dal ko fay solol man tab liimaana cappal ko rangal ko karatu tuggu ya keroog la jiitu kullu awliyaa'i ruuxi naan balle xalilullahi rasulullahi yar ko fa sellal ko nandal ko foofa xam-xamu diraaya ñu dal de ko tigil mu jàllalaahu laabis lahu billahi maa ko hóolu leram nga kotti jallati jabarut fala amee jalaal bakkum fal ngaay waajal ñu dal te jël ndam yi gënal yi jox ko ku xam gëneel billaahi moon a kaajal leeral nga kotti jallati malakut fala ma teeba motti maslamanki baay moo dootu taa mooy borom basiira ku ñépp xam la minka maslahiidu leeral nga kotti jalla hijaabul maarifa lii moo waral kum yar nga nekk baarif bal fa boxoo na dal jëm si naaso ñu jox ko fa suñu maam ja abdallahi ndeysaan muy góor gu mat bu ñëpp xam ci diina mu boole mandu ak defoo sharia mu kàddu leer dem gërëm ci bokkam ñu jox ko ba suñu maam ja astu jànka kookaale soxna sara ci soxna njànka ma raw na xayma Ibrahima Ibrahima Ibrahima damaa bëgg nga taxaw parce que yëf yi dafa sedd trop bu fekkee da ngeen a bëgg Ibrahima continuer indi leen àddiyee baay bi ci kaw taabal ji su ngeen ñëwul nag danaa wax Ibrahima mu taxaw ñu continuer ci leneen Ibrahima taxawal. ñëw leen Ibrahima continuer. maam Abdallahi. dëgg-dëggam si saalum buuru Mbaye ma gis ko def ko xaabi ñes nekk na gam gi nekk na kër Samba sanc na toy ba mooy dalu barahaamu xatum bi diw ba mooy dalu barahaamu ci aw rajab bisamba yowmal xamisa fii waxtil asri la kuttu wàcci soodaan kanu yaara si yëppuri billahi seet ci ngir bëggee juddum ba kon mawlido juddum ba jar naa màggal mawlido juddum ba jar naa màggal képp ku def ci ngir dogal màggal ko ku bëgg a tedd fi ba ñëpp tan la nga jaari aljana dogal màggal ko màggal ko mooy màggal rasulullahi billahi gañ naa ko bi gis billahi bi sant delsi baay ba dal koy ngénte jibrila wax si tur wa maam alhaaji nan ko nan ko tuddee kalilullahi kon te nga gis ci man karama laahi mu dal de koy tuddee kalilullahi ca yooya hat la gis ci man karama laahi mu xam fa ñetti hat noonam ya xeex ko ngir gaayu baax ya koy indil hidaaya يدال نكاي كلام كو وامبورغا نكاي فخيل سين دي ويرو ني نان محمد ويلا فنيغي نيورا كوكا يغل سي بير ماما على هادي ني طالب قلم بن نان غلاجو تدار سمو نغام يموكو سينال واي من لما واخ برهام موكو سينال تيويا نجاك سينال كربا في وقت العصر لا يدق البايم te yawmul ahdi ñes billaahi mooy waaja maam Abdallaahi ngay wax bambaam ya ñu teg bagaasam yi delluwaat sa gaam noonam ya ñëw fekkuñ fa tay ba kenn ñu def lu ñaaw taal këram gaaj saana sa gaam fukki at yu mat sëkka ndigal la del si naan ko yaa Abdallaahi te dellu ñes yàlla moo lay isaamoo te soo demee dëkkal fa ñoom bul seggu looy def ñi gis kon danañ la seexal maam Abdallahi dal na wax gomboom yi ñu jël bagaasam yi desiwaat si réew mi nooram ya te nu kenn bu abdillaahi dem na tàkka téeméeri bambu ngir sàmmu leer ga ñes billaahi moo farlu mu sanc koosi ko ma mel bam fa ba la sax fa Kaolack képp ku hun ngëneel demal fa Kaolack barhama tey suñu waaja barhama danga li jëm ci njaboot gi bokk ko gis sopp ko ngir taaram ci wikkiyaat yu teg lu tullaay xaawees te dekkal alquran baraw ku yaarin ci ñaar fukki at ak la taalif téere ruuxul adab téere bi jommal naar yi ko baay ba baay ba koy jàng xam lu ca gis rongañ ba de tuuru ñi teg ca ñetti baay ba dal ne feebar te dëkk fukki fan feebar ba yokku mu xam ne dëxël bi man naa mu faatu mu dal ne oo njaboot bi pour dénkaane hoo xalifa dénku ka njaboot ji alaaji Babacar na jox jàkkaam jar jettiire yëpp do alaaji mo Seynabu nan ko dénkal kuy sàkku xam xamal ko tegul ko gàttu ku sàkku alquran ba jokka kaamil seedal naa ba ku nekk jot turam dam ne seet suñ waaja baraxanaat suñ waaja booya manik ba ñoo pudee mu xoo ko te ne wanag ba daldi buntam ya lañ wax ca foofa duñ wax ci mbooloo yàllaay ki xam xëy te moo ko mbootal ba man baay ba dal ne faatu soxna ya muurun ba ngi yee barhama dal def hay de sal nagam ya ñu jël ku yobbu ko si def ko dara ki fan wéri xatam la feñal faydu ngir xam le selak rabbana borom seri mbay rek kam ja ya. modi tawam mo ñeekana seri yare mandi mbir ma wéru mam hatu ñan faatu ci aw korité doona farne tammi seen bokku ya mer dal di leen génne kereg hendu saan ngi sàmmu diina fana gireeb tusubaar kereg baay da kutba kàttul ji raw na ay xalam ci école yi laay kutba ba wax bi aaya laa takaafu wala teesanu lii moo waral keroog ñu mun bi du keetu pan dub laa be du tooren fasad bilaay kero jaayonte ñi nandal ngi réewi siin nandal ga waa nandal ga waa jolof ba jàll fuute nandal ga waa waa Gàmbi ba saak goraaye yëpp mandi li woon na Seyki Fay fa néegi Banjul te sir kebaabi tey alxaaji Mambay selleer ya xotti tami naari yépp daw hebal si koosi ka njëkk a ñëw ko kaa debbo nahwi ñaareel ba seyraani alaaji haadi bay demam min ke fa néegi koosi ñi bokk sarkolle tanaan ko maalum laa shakka fihi rasulallahi ñu farde gàmmoo ka ñëw de siyaara de andi ay hidaaya te ay sërif lañu sotoob rasool ba jokkumu hidaaya moo ma kamande rek bin kaay waaja ñes tuubal nay turke tuubal nay muusi tuubal na ay katu kule ki jarme tuubal na ay xeeti xeet yu kenn mandalin mokkal na diiwi hawsa hóor na saani fal na ku mox la dégg daali yaa na ju hamdillaahi ñes ñoo la hóolu ner bin danooni diina bakel yengotul lifitohol ngidan di hakade ko pukara baya ko hamal te sohti wut yaay waja ku yeddi li ma wax demal ba negi tombi ngadal te gis lamin ka def nga waru ke masuwa jema taw di kabar takel da jurfa janga alquran ni jamu ay kerel be turu ay jaran te sax mooy ba faww xamul yu jaadu min kaafa dem mabbu seen jalan ya te saare seen xërëm ya dal de sampi daara rëdd fa jàkka ñu si kafe noddu kenn dañatul xërëm may waaja kon alhamdulillahi ñu rabbana tegam dogal yi jiima muñ te muñ te jullit da yokk ay maqaama seetal ma awliyaa yi yaa yeneen ya kenn mosu feeñal ngir liggéeyal boroomam te àndul ak nattu ba jar mayam ya fokk nga jaaran ci nattu yaa ak balaa ya muñ ko ba jar may yaa boole ngërëm ya diggante aadama barxaama mii jaar na fii yi bindaayi nan jéem a dëddu xattu naa ngoram gi jor loo xoolu waaju nangoo ay xor la ku topp taaram yi le mu hen lab coono boo ci jëlee njëriñ bu dul musiba xamul ku baax bëggul ku baax kàccoor la li may rafet rafet mbiram lu jeex la yow sa xarit royat yi ma lay digal xeeti mbaax soo ko moo lay jëriñ fexee la jot nga dal na jéem a tarbiya soobu ci yoonu góor ñi mooy lay jëriñ kurus ge fardu jëm te jàkka jaar xamal ma tàggihin ci képp kuy julit yéen ma alquran yaa hadis ya loo ca xamut laajal ko xam mu wax foo mën a toll yaa ngi di def kubaanin bu rëy te bu ruslu demal nga laaj ko lii rëy suy baay ba daxaan waxtaanal ba xëy na mel na def na ni moroomam faw danañ ko fekki bàyyi digal na yoonu baax war nañu sartaan ku jaagul jéego billaahi doo réccu njaaraama barhaama ne leen njaaraama njaaraama barhaama ne leen njaaraama moom mu wax yow njaaraama kenn mënta lim lim fi legge ci dina yàlla def ak barkeem ba bañ koy fekki ci barke Mustafa ne amina bi hormati siddiqi wal faruqi bi hormati nuurayni wa jadul jojulil Mustafa min yepp bolo ndax yàlla def sa bay muy fadu suma salaatu haral muxtaari waadihi wa sabi laxyaari day nuuru ñesalaay way moo de xaw su diina bi taya day nuuru ñesalaay way moo de xaw su diina bi taya وقوفنا كافينا ما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أنت الهفت من كلنا مقافل كافي برا مكونك لا قلبي برهمك ولا لا إلا الله لا إله إلا الله يلين جنبنا فوالله قليس لقلبي برهمك ولا لا إلا الله لا إله إلا الله خشوعنا من سجاياك يا رسول الخلق برهم خشوعنا من سجاياك يا رسول الخلق برهم أعطاك زمام الكون برهمك ولا no. من وافاك برام لا إله إلا الله لا إله إلا الله جميل جابر لمن وافاك لا إله إلا الله لا I go like that. Saramakola. سري لآلي سري برهم كونه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسرى سر لي سري لآلي سري برهم كونه لا إله إلا الله لا إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم يا ألم صل وسلم على الباء ونقطته وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد يا أحد القلوب وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقطة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام المدد المدد يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله العناية العناية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله بطيب جئتك إلهي تائبا بطيب جئتك إلهي رابعا وأ مبارك تنزلني وانفع هنا جميع من قصدني بمنزل مبارك تنزلني وانفع هنا جميع من قصدني سلام على عبرها مع رمز محمد سلام على برهام رمز محمد سلام على برهام سر محمد سلام عليه من متيم حبه مدى كونه سر الظهور المحمدي سلام وإني بالسلام لأرتجي وصولي إلى عين الحبيب المحمدي أيا سيدي فاقبل تحية مغرم تجسم فيه العهد دون تردد لقد كنت قبل القبل سيد مشهد ودمت بحمد الله في كل مشهد أبا الفيض إنا طامعون لوصلكم أبا الفيض إنا طامعون لوصلكم أبا الفيض قدنا للإله الموحد الله الله على سنة الهادي قلوب أولئك ولا يبتلين الله بالزيغ والهوى نعيش على البيضاء ليوم لقائه ولا يك قشر الدين حظ محبنا بل اللب لب اللب محض عطائي الله سرى طيفه وهنا وكدت لحبه أطير اشتياقا والغرام بلائي وكل وليلاه وبرهام مبتلا بأحمد خير الناس عين بائي ومن حسد جاروا علي وإن أنني مبرز أقراني أوان صبائي الله وقعوا في الشرق والغرب فافدا إلى مكة إلا لشم شلائي ولملا وعين اليوم عين محمد صرى سره في هيكلي وروائي الله الله, الله أتيتك يا مولاي في اليوم والأمس وما لي من شيء سواكم إلى الرمس وما لي في اليوم المؤمل غيركم وما لي في اليوم مؤمل غيركم أحن لكم بالقلب فيه وبالنفس الله الله عبدا وسيدا وقد كنت قبل القبل في حضرة القدس رأيتك يوم الجمع عبدا وسيدا وقد كنت قبل القبل في حضرة القدس كما كنت قبل الخلق لله ساجدا وقبل وجود العرش واللوح والكرسي الله الله الله, الله, الله القبل لله ساجدا وقد كنت قبل الخلق لله ساجدا كما كنت قبل القبل ذي حضرة القدس فإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله في مغرب الشمس الله الله الله, الله, الله قصدي فيهم أن أسوقهم ولمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا وتعلم هل في الخلق احنا عليهم مدى الدهر مني والبعيد كمن دنا وما فيك مما فيك يبدو مفصحا وطاها حديثي للسمير مسافنا له الرأس مني والمحيا وكالكليم وبطني ورجلي والفؤاد وما هنا وسالفتي أو كاهلي ثم جانبي فكلي لخير الخلق بل هل مداهنا ولا لون والأولاد والصحب كلما حوالي ملكا وما كان دادنا تسترت عن دهري بطه محمد ومن كان للمختار من فك آمنا الله ومن كان للمختار من فك آمنا فما عرف الأيام ربعي وما درت سماتي موسى كنت أحمد قافنا وأحمد سر الذات والذات سرها تساوى على إدراكه الجلد واهنا بكنزية أو كنت قبل تعارف تحرك من ذا السر ما كان ساكنا الله الله الله الله, الله نحو سره وعلقت من ذاك الزمان إلى هنا الله الله من نحو سره وعلقت من ذاك الزمان إذا هنا الله الله الله, الله يا الله واشهدوا اني الى الشيخ انتمي وما لي سواه في جميع العوالم الا فاشهدوا اني الى الشيخ انتمي وما لي سواه في محبته قوتي وسري وبويتي به أرتقي دوما لأعلى السلالم به سرت طي الكتم بل نشر طيه به قد بدا ما كان أحلامنا هو العبد عبد الله يا نعم رتبة تقاصر عن إدراكه كل هائم الله سره وإن كان كل السر منه لآدم فإن شئت قل شيخي تكون مصدقا وإن قلت رمز الحق لست بظالم وإن شئته قطبا فذاك وإن يكن مرادك درك الحق فات وسائل عيني على أنه يبقى مدى الدهر نسبة تشتت في الأحوال في كل عالم الله الله ربكم أيا سيدي إني متيم حبكم وما لي دوى كلا ولست بنادمي أحبكم في كل شيء وقبله ومن بعدي حبي لكم غير صارم وأجهلكم جهلا مع العلم أنكم ظهور تجلي الذات قبل الأوادم الله الله الله الله جهلا مع العلم أنكم ظهور تجلي الذات قبل الأوادم تملك يا عبد الإله قيادتي فإني بذا أبقى ليوم التلاحم فلست أرى في القبل والبعد غيركم فكلي لكم برهام بحر المكارم الله قبلي والبعد غيركم فكلي لكم برهام بحر المكارم عليك من الرحمن بدءا ومختما رضاه مدى الايام سر المعالم الله الله

من وطئ الثرى وخير نزار خير حي وهالك محمد مأمون السماء رسولنا وهبت له نفسي وكل ممالكي يؤرقني ذكرى سراه بمكة وقد كدت أسري أو سريت كذلك يؤرقني ذكرى سراه بمكة وقد كدت أسري أو سريت كذلك سريت بروحي علقت في جسم أحمد فتم لقاء بين ذين هنالك الله الله